incha allah mbokk ñu ngi toll tey ci sunu téere bi fi ñuy tuddee baabun fil mujahada baabun fil mujahada moom mooy fukkeelu bunt ak benn ci téere bi الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk ñi ngi jëkk a sant suñ boroom ci dugal gim ñu dugal ci weer wi ñu tuddee rabiul awal suñ maam yi daan ko wax weeru gàmmo yàlla defal nañu ci xéewal mooy ci li ñu yëg ñu nag waa Arabie saoudite ak li ñu wër yépp da ngay gis ne ñoo ci bokk duggandoo loolu nag ak xéewal la ngi ñaan sunu borom rek yal na yàlla teral ko ci ñun ci jàmm ju ànd ak ngëm ci mucc gu ànd ak lislaam yàlla depp lañu la mu bëgg ca gërëm ko incha allah kon ñi ngi ci baabun fil mujahada
baabun fil mujahada qaala allahu taala walladina jahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa almuxsinin suratu alankabut wa qaala taala واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سورة الحجر وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل أي انقطع إليه وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سورة الزلزلة وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا سورة المزمل وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم سورة البقرة والآيات في الباب كثيرة معلومة عن أبي هريرة
mbokk kon bunt bi moom lay wax baabun fil mujahada mujahada mooy góor góorlu ya ngay def ba mën a defloo sa bakkan mbir yoo xam ne nekkul woon lu yomb ci moom mu jóge ci jihaadu nafs qaala allahu taala wallazina jahaduu fiina lanahdiyannahum subulana sunu borom mu ne ñi nga xam ne ñooy def ay góor góorlu ci sunu diine ji daañ leen jubal sunuy yoon wa inna allaha la ma al muxsinin yàlla day mi ngi ànd ak ñi nga xam ne dañuy rafetal di sellal sunu boroom wax ba tey ni wa'bud rabbaka xatta ya'tiyaka al-yaqiin jaamul sa boroom ba mu lay dikkal lu wóor ca mooy dee waxaat ba tey ni wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabatila tuddal sa turu boroom ca nga dogu jëm ci moom ak dogu ay inqita ay inqati ilayhi dogul jëm ci moom waxaat ba tey ni fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara ne lu waay def lu mu tuuti tuuti meloon ne pënd poussière sax dana gis loolee ci yiw waxaat ba tey ni wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi lépp lu ngeen jiital ñeel seen bakkan ci yiw da ngeen ko fekk ci yàlla huwa xayraw huwa xayran wa azamu ajra mu nekk yiw waaye nekk lu gën a màgg ci aw ah, pay waxaat ba tey ne wa ma tunfiqu min xayrin fa inna allaha bihi alim lu ngeen dépensé ci yiw sa borom yàlla xam na loolu aaya yey wax ci loolu bari na lu ñu xam la mbokk bunt bi moom la ñuy tuddee buntu jihaad ci wàllu bakkan doonte ne ne jihaad buñ ko waxee day ëmb ñaari mbir bi gën a màgg mooy jihaad ak sa bakkan ñaareel bi mooy jihaad ak noonu yàlla yi loolu loo tax sunu borom dañuy wax ci beneen aaya ni wa jaahidu fi llahi xaq jihaad yi na ngeen jihaad ci yàlla dëgg-dëgg jihaad bokk na sunu borom subhanahu wa taala lim ñu wax ni ñooñu jóg di jéem a not seen bakkan ba defloo ko li yàlla bëgg waaye ñi bëgg a baare diine yàlla ji ñu jàkkaarloo ak ñoom sunu borom mu ni dana leen jubal ay yoonam loolu it mbokk lum lay jàngal diine lislaam loo ci gën a góorgóorlu yàlla di yokk sa xam-xam yàlla di yokk sa dogu naka noonu it sa ngëm noonu lay wàññikoo ci dellu gannaaw ga ngay dellu gannaaw sunu borom mu ne mi ngi ànd ak ñiy rafetal ca mooy ñiy def ixlaas ci lépp lu ñuy jëf ca loolu mbokk mooy jihaad bi gën a màgg borom xam-xam yu jëkk yee dañ daan wax ni xeexuñu ak seen bakkan xeex bu gën a màgg fexe ba am ixlaas gaa yi fexe ba julli yomb na aj màkk yomb na koor yomb na mais li gën a jafe lépp luy jafe mooy la ngay def lépp nga def ko fekk yàlla kese tax nga koy def yal na yàlla yombal ko ci ñun loolu nag mooy jihaad bi gën a màgg sunu borom mi ngi ñuy wax jaamam yi nga xam ni yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un jullit ñi baax ñi dëgg-dëgg la ñuy bë- war a def daañ ko def waaye teewul ñi nga ànd ak tiit lu tax mooy bàyyi yàlla nangu na li nga xam ne def nañ ko loolu it moo tax ba mbokk sunu borom yàlla subhanahu wa taala tëddal tëral loolu boo xoolee ay ñaareel bi borom bi mi ngi ñu ci wax ni na nga jaamu yàlla ba dee dikkal la muy yaqiin ca it muy wone ne doomu aadama li nga xis ba koy def ci mbaax ngal la waay saxal ko bu ci dellu gannaaw sunu yonent alayhi salaam mas na wax xafsa di magu abdullah ibnu omar na ko abdullah day ak a baax lu dul ne moom dara naa fi lu guddi xëy ba ko gis ngeen abdullah ca la reprendre na fi di guddi ba baa muy dajeeg boroomam lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci lu baax yàlla di la ko man loo bu ca dellu gannaaw sax ca ba dee fekk la ca loolu ci jihaad la bokk sunu borom it mi ngi wax ni ne lañu guddi neex na lool waaye ngalawaay bu guddi jotee xeexal ak sa bakkan bàyyi sa lal dem di woo sa boroom dogu jëm ci moom noonu it lañuy borom bi jàngale ni ci ni yow miy xeex ak sa bakkan bul xeeb dara lépp loo xam ne yiw la bu ko xeeb ca xam ne boo ko defee pay gi mi ngi lay xaar lépp loo xam ne jiital nga ko ci yiw soo demee da nga ko fekk ca sa kanamu boroom mu gënoon fuuf nga téye woon ko ci àdduna loolu mu ñuy jàngal ci xeex ak sunu bakkan ci def farateeg naafile yi rawatina ci buntu joxe ca la ñu yàlla wërsëgal ba ca mujjoon sunu borom ne lépp loo xam ne yéen a ngi koy def ci yiwit xam ne ne yàlla xam na ko lii lépp mbokk day wane ne bakkan bi dañoo war a xeex ak moom jéem a koo fexe dox digganteem ak lu xaraam waaye jéem a dox digganteem ak dem ca la yàlla gërëm bunt ba ca jëkk gën caa am solo wax nañ leen ko sànq te mooy fexe xeex ak bakkan bi ci sellal ba lépp looy def yàlla rek a tax waaye it bokk na luy suuxat jihaad boobu mooy xam-xam bu sell fokk nga xeex ak bakkan bi ci jàngi la yàlla bëgg jàng sa diine ba xam ko ci xamin bu leer lay santaane yi nga def ko lay tere yi nga muñ ko lii da ngay gis ne moom mooy buntu jihaad bi gën a màgg ci jihaad yi gannaaw loolu nag mbokk beneen jihaad bi mooy lan mooy jihaad ak yéefér yi ak naafiq yi yéefér yi ak naafiq yi nañuy jihaad ak ñoom bu dee naafiq ya wax la ñuy jihaad ak ñoom suñu borom mu ne wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga mooy heure bu ñu ne seen waxi naafiq ngeen delloo ko ci waxu dëgg bu wér bu bawoo ci yàlla amma bu dee yéefér nag mbir ba mën naa dem ba ngeen xeex ak moom doonte ne mbokk surutu jihaad itamit da ngay gis ne balaa daje ci jaam bi yu bari da cay am duna ku nekk rek moo am droit gàddu sa char de combat wala gàddu say bomb dajeeg ay yéefér rey leen ne da ngay jihaad déedéet jihaad dafay am ay surut yoo xam ne yàgg nañ ko fi wax mi ngi noonu ala kulli xaal loolu mooy bunt bi jëkk bi mu wax ci loo xam ne dafa jëm ci alquranul karim
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري آذنته أي أعلمته بأني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباء
njëlbeenu xadis ci baabun fi lmujahada ki koy nettali mooy abi hurayra radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يونت بي عليه السلام نينا سين بروم يالا داي نينا كو خامني دافا نونو اك سما فيتي كو خامني دما كو فيتو مي سما وليو فقد آذنته بالحرب kooku de déclaré naa ko déclaré naa ko yégal ko ni maa ngi danaa ger ak moom wa ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahaba ilayya mima ftaradtu alayhi sama benn jaam jegewuma lu ma gën a sopp la nga xam ne dama ko faratal ci kawam wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil xatta uhibba donte na sama jaam du deñ di ma jéem a jege ci naafila ba ma wëlbatiku bëgg ko ba ma bëgg ko fa ida ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi su ma demee ba bëgg ko man may doon noppam ya muy dégge wa basaruhu allazi yubsiru bi may doon bëtam ba muy gisee wa yadahu allati yabtishu biha may doon loxoom ba muy jàppe wa rijlahu allati yamshi biha may doon tànkam ba muy doxe wa in sa'alani a'taytu su ma ñaanee ma jox ko wala in istaazani la uizanna heure boo xamee ni nii sàkku na ci man xettali ko dinaa ko xettali mbokk lii xadis la bu rëy di xadis bu siiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne sunu borom nee na ku noonoo ak sama waliyu man yàlla déclaré na ko guerre mbokk kan mooy waliyu yàlla yal na yàlla sàmm sunu mbokk ba Abu Bakar Jazairi yi day wax ne tey boo demoon ci dëkk lislaam yépp nga wàcc rek dajanteeg kenn ci mbedd mi na ko waaw dama bëggoon a dëkk bi yan wali yi ñoo fi nekk nee na du la yóbbu lu dul ci ay xabru parce que pour ñoom wali yi mooy nit ñi ñi fi nekkoon dee nañu jeex na waaye mbokk wali yi mooy kan sunu borom leeral na ko surat yunus ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun allazina amanu wa kaanu yattaquun ña yàlla féetewoo du ñu tiisu du ñu am lu ñu ragal ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne gëm nañu ca am nañ ragal yàlla seen biir dënn ya sell na ngëm yàllaa ca nekk seen doxalin seen jëf yi yépp mi ngi dëppoog ragal yàlla dañ ko fekk ca boulanger ba nekk ca four ba fekk ko tëgg ba nekk ca mbaaram menuisier ba nekk ca menuiserie comme nañ koy fekkee ca jàkka ja wala di ko fekkee ca ñay napp ala kulli xaal képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla ca ragal yàlla yaa ngi bokk min awliya illah léegi nag ku mel noonu ku noonoo ak moom ca wali yu yàlla koo gis mu noonu ak moom rek diine tax mu noonu ak moom waaye wali yu yàlla du dem di tooñ nit ñi di njaaloog nit ñi di def ay caaxaan ñi leen contre ñépp diine tax ñu contre leen sunu borom nag mu ne bu boobaa man yàlla déclaré naa la guerre te mbokk sunu borom ka muy déclaré guerre gis nañ ne moo koy xam moom moom bari na nit koo gis di ko ñee fekk du nelaw guddi wala nar a am mujj gu raf mujj gu ñaaw ci alalam ak ci nja digganteem ak njabootam ay fitna yu nar koo dal lu tax ndax yàllaa ko déclaré guerre ñu mel ni rek lekk ko riba yi sunu borom mu ne bu ngeen bàyyiwul riba fa'zanu bi harbin min allahi wa rasul prépare leen guerre bu may guerre ak yéen doonte ne lekkatu riba yi ci zahir li ñu gis ñi ngeeg ay millions ñi ngeeg lépp waaye sunu borom mu ne déclaré naa leen guerre buy commencé ci àdduna di jeexe ji yawmal qiyaama léegi nag sunu boroom wàlli yooyu yéemuñu xam ngeen ni armée soo engagé rek dañ naan li militaire waaye militaire yi yéemuñu ñee da ngay gis na ay gobi lañu ay caporal ay sergent commandant colonel ba baa nga yéeg ci ay général naka noonu it wàlli yu yàlla yi noonu la ñu mel dañoo ëppante grade amul kenn ci ñun ku naan am na ci yàlla la Aboubacar amoon wala la ali ibn abi talib amoon loolu it moo tax ba yàlla dañ koy jéem a jege mu ngi noonu sunu borom yàlla nag nan lañ koy jéem a jege da ngay gis ni ñuy juuyoo ci waliyu ba noonu lañ juuyoo it ci ni ñu koy jéem a jege ñu bari jàpp nañ ne da ngay wut kurusub junni dootoo nelaw guddi di dugg xalwa taal ay cuuraay kaza wa kaza ñu naan da nga yor ay turu yàlla yooy jege yàlla déedéet mbokk jëlee sunu borom mu ne sama jaam jegewu ma li ma gën a bëgg li ma farataal ci moom mbokk farata yi yàlla farataalu ko ci ñun lu dul da koo bëgg lool moo tax mu farataal ko ci ñun looloo tax ba ñetti rakk yi nga julli timis bu doon bi nga sëlmalee da ngay julli ñaari rakk di sëlmal di julli ñaari rakk di sëlmal avant ngay nga def cinquante rakka cinquante rakk yooyu li muy baax baax baax ñetti rakk yi timis yi moo ko la yàlla gën a bëgg ndax lii la farataal weeru koor un mois la su doon da nga caa teg six mois naafila six mois naafila yooyu li ñuy baax baax weeru koor farata ba la yàlla gën a bëgg sarax lu mu bari bari zakat la yàlla gën a bëgg loolu it moo tax ba jullit war nay góorgóorlu ba di jéem a toppatoo ay farataam bu baax a baax di ci gën a bàyyi xel léeg-léeg nag seytaane sax mën na la noot say naafile di gën a concentré wu ci say farata waaye jullit xamal ne la gën a màgg li nga def ci kaw suuf mooy farata waaw gannaaw farata yi nag sunu borom mu ne sama jaam bi du deñ di jëfee naafila ba mu bëgg ko lan mooy naafila mooy heure supplémentaire mooy supplémentaire bi ngay teg ci farata yi waaw ki nga xam ne farataam matul ndax naafila boobu dañ ko considéré tontu li mooy déedéet waa jaa ngi nii julli na tisbaar ba pare tàkkusaan bi julliwul di dóor ay naafilam ba timis jot nga defe ne kooku yàlla dana nangu loolu abadan waa jaa ngi war a génne zakat alalam génnewu ci zakat waroon naa génne cent mille francs zakat mu mu bàyyi loolu dem tabax jàkka maye un million sarax miskin yi kaza wa kaza te farata zakat bi génnewu ko ndax yàlla dana nangu lale déedéet kon gannaaw farata yi la sunu borom nag ne du deñ dima jege ci naafila ba ma bëgg ko waaye it loolu daf ñuy jàngal ne naafila yi dañ koo war a rafetal wallahi alhamdulillah booy nekk ci jàkk yi nga xam ne dañuy cosaanoo ci sunna ci bari sax da ngay gis yenn julli yu normal mais bu sa tànk guddee ngay dem ci yenn jàkk léeg-léeg mën na am imam bi war a jiite jàkka ji bu ñëwee bu defee ñaari rakk rek nga bëgg a jël say daal dem bàyyi jàkka ja ñu ngi noonu këpp këpp këpp këpp këpp këpp pour ñoom naafila la rek kooku moom noo ko defee baax na or que naafila yooyu dalay jegeel sa borom ci àdduna te yowmal qiyaama bu farata yi manqué sunu borom danaan nañ jëli naafila yi ngir ñu mën a remplacer loolu muy wàññi ne dañoo war a rafetal farata yi rafetal naafila yi ba baa ma koy bëgg sunu borom yàlla ni day bëgg jaamam jàngoon nañ ca gannaaw yonente bi alayhi salaam nee na yàlla su bëggee jaamam day woo jibril ba ko jibril jaam sàngam day bëgg naa ko na nga ko bëgg jibril ne yàlla bëgg naa ko daa ji ne malaaka yi hee seen borom nee na bëgg na jaam sàngam na ngeen ko bëgg malaaka yi ah ñu ne de bëgg nañ ko yàlla na yàlla subhanahu wa taala bëgguñu loolu mooy kawe lépp doomu aadama li ngay sàkku ci kaw suuf lépp la ca gën a kawe mooy yàlla bëgg la mu ngi noonu la ca gën a kawe mooy yàlla bëgg la léegi kii yàlla da koo bëgg lan mooy misaal bi misaal bi mooy bari na ay taalibe lool misaal bi mooy bari na ay tool lool yu ñu koy bayal misaal bi loolu mooy garam bu yërëy na lool ndax loolu mooy misaal bi laa wallahi mbokk jëri loolu lépp yéeféer yoo ko ëppale bu dee mbooloo yéeféer yi ëppale mbooloo bu dee ay tool yéeféer yi gën a yaa ci tool bu dee ay taax yéeféer yi gën a rëy taax kon ka yàlla bëgg ni ñu koy xamee sunu borom mu ne man may doon noppam ba muy déggee dootul nangoo toog du déglu lu dul lu neexul lu dul lu neex yàlla doo ko fekk muy seetaan lu dul loo xam ne wóor na ko ne lii ngërëmal yàlla ñu ngi ci doo ko fekk muy jël alal wala di joxe alal lu dul foo xam ne wóor na ko lii ngërëmal yàlla mi ngi ci tànkam yi du ko jël di jéego di dem lu dul foo xam ne wóor na ko ne ngërëmal yàlla mi ngi ci ku mel nii mbokk mooy wëliyu yàlla bi suñu borom ne may tànkam may noppam may bëtam léeg-léeg nga dégg benn kilifa naan diw mooy samay tànk mooy samay loxo ca moo di ne ne lu mu wax rek sama ngërëm moo ci nekk noonu it la wëliyu yàlla di mel amma boo demee ci yàqkat yi ñoom dañ naan ki dem ba yegg ci gratu wëliyu utal nañ ko yeneeni tur ay xawsa ki aktaaba ki xutba yu kenn xamul yooyu day dem ba lépp lu yàlla di gis da koy gis man na noonu dañ naan nit ki mën ngaa dem ba toog kaw suuf di jàkkaarloog sànq lañ ñuy dox ca kaw arash xaw ma ku leen wax arash am na sànq lañ dégg nga wàllu yu yàlla fu mu toll toll àdduna bi yépp lay dégg loolu tax benn waaye mën a nekk ci New York di daanu ci immeuble am na yaa Cheikh Thiam ba nekk Dakar parce que pour ñoom Cheikh Thiam mi ngi dégg li ko ci àdduna bi yépp dégg nga ila axiri mais loolu mbokk suñuy wax la mandarga buy wone ni yàlla bëgg na la yàlla bëgg na ma sàmba mooy xoolal sa bopp nga xool ma sàmba tant que yaa ngi contrôlé de dootoo amati benn bànneex lu dul di déglu lu neex yàlla tant que yegg nga ci ne dootuma seetaanati lu dul lu ma yëg ne li neex na yàlla tant que yegg nga ci ne dootuma jël di joxe lu dul fa ma xamee ne neex na yàlla tant que yegg nga ci ne dootuma demati lu dul fa neex yàlla boo ko xamee xam nga ko boo ko xamul it xam nga ko ala kulli xaal mi ngi noonu borom bi nag ne ku mel nii bu ma ñaanee ma may ko na am mbokk jullit bu ñaanee yàlla mu may ko lu dul ne yàlla moo ëpp ci ñun yërmaande sunu bopp looloo tax ba du luñ ko ñaan mu may ñu exactement la mu bëgg te ji portable ak bëri njariñ mais sa doom bi am 10 ans mën na ñëw ne la papa jëndal ma portable nga bañ at mi na ci concours am papa jëndal ma portable nga bañ déedéet dama la jëndal portable xaaral dem jëndal ko benn tenue bu rafet lu waral loolu mooy xam nga ne portable bi lu baax la mais loram mi ngi ci loolu it moo tax sunu borom it noonu lay defee ki jaamam yonent bi alayhi salaam nee ne jaam bi foo ñaane yàlla mu may la lu dul ñaan nga mën na nekk mu may la li nga bëgg loo bëggoon soxna su baax may na la soxna su baax waal wala yàlla fegal la ci lor boo xam ni mi ngi jëmoon sa kaw ci yégoo ko benn waaye ngi dugg ci benn oto ñu def accident oto bi ñi ci nekk ñépp dee moom xureekuwul sax est-ce que mës na ñaan yàlla yàlla accident bi ma ñore def pour musal ma ci laa xamu ko woon ka fu ko yàlla musalee mooy ñaan yam ko doon ñaan ca examen ba réussiro ko fa la ko yàlla fayee lee ba gën a neexe ci nag mooy yàlla dencal ko ko ba yowmal qiyaama ñu fay ko ay jëfam indi ay tuyaaba jox ko mu ne yàlla tuyaaba ji un liggéeyuma ko woon ndax allaaxira loo def ci lu baax da nga koy xam loo def ci lu bon da nga koy xam comme ni ñu ko jàngee léegi fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara ku ne da nga koy xam xale yi dem nekk en classe d'examen bu ñu leen joxee seen fiche seen point yépp xam nañ ko léegi nag bu ñu leen defalee plus dix ah lii fu mu jógee monsieur le professeur ñu ne lii ñoo la ko mayee ci nangam ak nangam ak nangam sunu borom ne la ñaan ya nga ma doon ñaan ñaan yooyu nanguwuma ko woon xam naa ne fi nga koy gën a soxlaa ñu fayale ko ay xasanaat bu boobaa doon nga mébét sa ñaan yépp yàlla bañoon ko nangu gis ngeen ndax àdduna dafa gàtt sunu borom it mu ne bu sàkkoo ci man xettali ko danaa ko xettali kon la muy ñaan mooy la mu yaakaar ci xéewal gu ñëw ci moom la muy xettali ko mooy musiba bu mu ragal day dal ci kawam heure bu ñaane yàlla musal ko ci yàlla dana ko musal ci musiba boobu loolu it mbokk mi wane ndekete gàllaaj gi gën a rëy ci kaw suuf nekkul dem ci boxaaba yi ñu lay nax takkal lii fi suulal lii fi ajal lii fi laa wallahi gàllaaj bi gën a màgg bi lay gën a aar gën laa may réussite fexeel am al imaanu saxiix wa taqwallah am nga ngëm gu wóor am ragal sa borom lii mooy la gën a màgg luy aar la nga xamee ni nii mooy julit loolu kon di xadis bu mag boo xam ne Buxaari solo na ko julit bu nekk war cee bàyyi xel mi ngi noonu
تعال بي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هروله رواه البخاري
ñaareelu xadis bi ci baabul fi lmujahada ki ñu koy nettali mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam anas ibnu malik radiyallahu anhu fi ma yarwihi an rabbihi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qaal إذا تقرب إذا تقرب العبد إلي بشبر شبرا تقربت إليه ذراعا sunu yonent mooy wax ci li muy solo jële ko ci boroomam sama jàmbire bu ma jegee chibre mooy yaatuwaayu loxo nii mais fi baaraam yi toll nii danaa ko jege la nga xam ne moom mooy zira fi conce bi commencé jëm ca catu baaraam ya wa ida taqarraba ilayya ziraan taqarrabtu minhu baan su dee ñëw na jegam lu toll ni zira fi conc jóge jëm ca baaraam ya danaa ko jege loo xam ne ab jéego lay doon wa ida ataani yamshi ataytuhu hërwala su dee sama jaam mi ngi jëm ci man di dox danaa jëm ci moom nekk kuy waaxu jëm ci moom bokk li lim ñuy won mooy sunu boroom dafa bëgg jaam bi dellusi ci moom bëgg jaam bi ko bëgg di dab bànneexam yàlla day bëgg jaam bu mel noonu moo tax ngeen yàgg dégg ci ay xadis yonent bi alayhi salaam ne yàlla day kontaan ci jaamam bi sànk woon xëy xëy bàyyi lépp tub dellu ci yàlla mel ne waaju àndoon ak waruwaayam lekkam ak naanam dem ci benn désert mu daal di koy réer mu foog ne day dee dem tëdd ci benn garab yeewu rek waruwaay bi ñëwaat ak lekk geeg naan gi kookee ni muy kontaane yàlla yi noonu lay kontaane ci jaamam bi jengoon ba wëlbati ko dellu ci moom waaye nagam day kontaan ci jaam boobu jaam bi nga xam ne ma musul jeng mi ngi sax jëm ci moom kooku it lay ëpp kontaante loolu tax mu ne sama jaam bu jógee di ma jege man damay dem manit di gën koo doon koo xam ne nii da koy jege moom tamit na doon lu mu dox sunu borom yàlla gën a jëm ci moom loolu itamit muy wane ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala noonu lay bëggee la nga xamee ne nii moom mooy ab jaamam ci façon yi ñu koy jege te loolu it muy wane ne nit ñi nañuy doxee jëme ci yàlla bokkul am na koo xam ne nii danay naafila waaye am na ko ko mat dix fois la muy naafile am na kuy sarxe am na koo xam ne sarxe dix fois la muy sarxe am na jàng ko tam alquran am na kuy jàng dix fois alquran kon nañuy doxee jëme ca yàlla nekkul loo xamee ne nii ah lu yem la mi ngi noonu la nga jëkk a dégg sunu yonent alayhi salaam wax fi ma yarwihi an rabbi yonent bi ñaar la doon nettali lu jóge ci boroomam mooy alquran bi nga xam ne jibril la koy wàcce su wàccee ñu bind ko ci téere bi ak li ñuy tuddee xadiisul qudsi nga xam ne yàlla ko koy xamal directement wala jibril wax ko ko lu bokkul ak alquran loolee xadis bi da ngay gis ne ah ci xadis yooyu la bokk mi ngi noonu.
wa an ibni abbas radiyallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري
سنة يتلو حديث عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان نياري خيولنيني maghbunun fihima kathirun min annaas nekk na di ca perte ci xéewal yooyu lu bari ci nit ñi bu jëkk ba mooy sixa wal faraax mooy wér ak am jot mbokk sunu boroom ay xéewalam ci ñun bari na lool boroom xam-xam yi dañuy wax ne xamal ne xéewal gi gën a màgg mooy xéewalul islaam wala sunu borom wax wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina tey lim ba gën a rëy bi ñu jox jullit ñi mooy un milliard et demi or que def nañ plus de six milliards ci kaw suuf nga xool tey ñan ñoo sànku ci kaw suuf ñu xamul lislaam yow yàlla boole la ci lislaam xéewal mënta paase loolu gannaaw xéewalu lislaam amul xéewal gu mën a gën a màgg xel doomu aadama li ko teqaleeg bàyyi ma yi mooy xel bal doomu aadama bu amul xel bàyyi ma sax moo ko tane nga sant yàlla ci xel mi mu la wërsëgal ci xool foo koy jëfandikoo ñetteelu xéewal bi mooy li ñuy tudde al amn mi ngi noonu al amn ca moo tax suñu borom waxoon ni wala nabloon lakum bi shay'in min al xawf am na muy sécurité loolu it mbokk ñaan leen yàlla yàlla na yàlla fay guerre ba tàkk ca Mali guerre arrangé wul kenn yàlla dogal na yéeféer yi coalisé nañ te dañuy sawar lool ci xeex loo xam ne dañ ne turul islam la yor su ko defee loolu démb rek ñi ngi wax naan plus de téeméer à téeméer ak juróom fukk ci ay maliens daanu nañ te mbokk xamal ne Malik Sénégal tubaab bi ko fi indi mais ñu ñëpp benn réew lañu d'ailleurs bu dul woon ak toj gu ma toj fédération du Mali ñun ñëpp ay maliens la ñu waroon a doon benn erreur bu ndaw ci histoire moo tax ba Sénégal ak Mali am mais ñëpp benn benn réew la woon kon nañ xam ne loolay fay fekk dal mi ngi mel ne ñu ngi naan bu daloon tey Tambacounda wala mu dal Saint-Louis suñuy mbokk jullit rekk fa nekk ñaan yàlla yàlla fay ay bi nekk foofu dara melul ne guerre dara melul ne guerre gis ngeen léegi nag jàmm boobu itamit jullit dafa war ne xéewal la mu jéem cee profité bokk na ci itamit xéewal gu mag yàlla may la looy dundee loolee xéewal la doomu aadama ak ñàkk gu tar musiba la yal na yàlla musal ñu ci gis ñoo xam ne nii amuñu fu ñu dëkk amuñu lu ñu lekk loolu ca gënoo leen ëppoo leen ila axiri noonu it la ci amee yàlla may la ak wér borom xam-xam yi dañ ne wér benn couronne la taajun ci boppi ñi nga xam ne dañoo ñi wér am naa ñan ñoo ko mën a gis mooy ñi feebar wér googu sunu yonente alayhi salaam ne nañu bëri utiliser wuñ ko nañ ko war a utiliser et pourtant bis mën nañoo rek feebar dal la su benn waaye bu actifoon nekkoon ci digg dooleem xëy xëy rek yàlla téye ko ci feebar dafa paralysé wala lu deme noonu kon bi nga wéree góorgóorlul loo man ci jaamu yàlla nga def ko ci loolu beneen bi mooy alfaraax mooy nit ki am jot tey boo amee jot ñu bari ci doomu aadama yi jot googu duñ xam ne xéewal la kañ lañ koy xam laajal suñu doom yi dem Europe am na ci ñoo xam ni toog naa ko wax benn jeune bu nekk États-Unis nee na ma ñetti waxtu lay nelaw par jour ngi noonu xam ngeen mbokk kooku amul benn jot ndax train de vie ba nem méttee bëgg am lu yónnee Sénégal il faut ñu boole ñaari liggéey am na ci ay jeunes yoo xam ne dañ naan la bu ñu tëdd seen dàll sax duñ ko summi am ñoo xam ne dañ naan la bu ñu amee jotu téléphone mooy heure bi ñuy lekk loolee ca ñi ngi nekkoon Sénégal amuñu woon benn problème kon heure bu la yàlla mayee jot ngalawaay jot googu xoolal heure yi jàll minute yi jàll lu nekk na jàllaale ngërëmal yàlla malheureusement bi ñu demee ba Occident not ñu indil ñu télévision indil ñu ay journaux indil ñu ay jeu da ngay gis ay mag yi jëm ay heure la ñuy yàq ci télévision yooyu ay heure la ñuy yàq ci journaux yooyu ay heure la ñuy yàq ci jeu yooyu su ko defee ca loolu mënoon nga ci jàng alquran boo jàngal alquran alal aqal nga def ay askar tudd sa borom subhanallah alhamdulillah wala fekk ne dangaa nekk di wax ak nit ñoo xam ne lu lay jëriñ sa wàllu xel ak sa wàllu adduna waaye concentré wu ci ay dem yi concentré wu ci ay jeu na doon loolee ca journaux yi la ca bëlut bala ca échec bala ca lu mu mën a doon heure yooyu mën nga ca am lu la jëriñ téeméeri yoon benn waaye ngi xamul dara ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam tey bu jëloon benn téere bu ndaw bu ñuy wax rek arbaxina xadis bu nawawi ngoon gu nekk rek mu xool fexe ba mu wattu ci benn xadis xoolal loolu la mu ko nar a mën a jëriñ lu ko mën téeméer yoon lu ëpp temps ba muy yàq fële moo tax yonente bi alayhi salaam ne cay xéewal lu gu yàlla di defal nit may ko wér may ko jot waaye li ëpp ci doomu aadama yi dañ caa woru dañ caa perte utiliser wu ñu loolu fa nga xamee ne nii foofu lañ koo waroon a utiliser mi ngi noonu
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه
gis nañu ne Aïcha radiyallahu anha mi ngi nettali anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquumu min al-layl nekkoon na di taxaw guddi xatta tatafattara qadamaa ba baa muy nekk di xar tànkam ya fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya rasul allah ma ne ko waaw lu tax ngay def lii yow yeneen ci yàlla bi wa qad ghafara allahu laka ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar te yow yàlla baal na la lépp loo jiital ci bàkkaar ak lépp loo desal gannaaw qaala afala uhibbu an akuna abdan shakura mu ne ko waaw Aïcha ndax man du ma gërëm ci nekk jaam boo xam ne day sant boroomam subhanahu wa taala mbokk julit kii mooy yonent yàlla bi sunu yaay Aïcha nee na guddi da daan taxaw di naafila ba mujj tànkam yi da daan néewi ba sax di xar ca daan gis ci kanam lu waral loolu ca naafilam yu guddi yooyee ci yeneen riwaaye da ci daan boole ay jooy sax ba sunu yaay Aïcha yërëm ko di ko fàttali éyum yàlla yónni li ngay def xanaa dangaa fàtte ne yàlla nee na baal na la loo mës a def ak loo nar a def yépp loolu mbokk moom rek moo ko am moom rek moo ko am ci amin bu leer bu yàlla garantil donte ne ni am na ci ñenn ñuñ koy jortu ci ñoom bokk na ca ashabu badr gis nañu ni ki nga xam ne muy abi baltata ba yonent bi waree ni mu ubbi màkka mu bind benn lettre avert ne day avertir waa màkka te ndeysaan jurit bu baax la woon waaye dafa bàyyi woon njabootam ak alalam mu jàpp ne lettre boobu dana ko sauver ba waa màkka aaral ko loolu yàlla mi xam kumpa xamal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sant ali ak miqdaad ne leen daw leen su ngeen demee ba baa ngeen di yegg fi nga xamee ni nii mooy masalan yëmbal muy raw lillahi alhamd mbir la moo xam ne nii mi ngi commencé ci suñu réew yal na yàlla saxal ko te yaatal ko loolu it kon muy wàññi ni def lu baax saxal ko baax na waaye nag place yi day wuutante waxtu yi day wuutante looloo tax ba doomu aadama it war nay xool waxtu yi am solo mu def ci lu ëpp la muy def ci waxtu ordinaire ya loolu mi ngi noonu su ko defee bokk na ci loolu fukki fan yi mujj te la nga xam ne mooy chehru ramadan al mubarak mi ngi noonu
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
gis nañu ni xadis juróom benneel bi ca mooy téeméerelu xadis ci sun téere bi an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam almuminu alqawiyu xayrun wa ahabu ila allahi min almumini daif julit bi nga xam ne day dafa dëgër ci kàttan moo gën te it moom la yàlla gën a bëgg jullit bi nga xam ne dafa lompañ wa fi kullin xayr waaye ci képp kenn ci ñoom ñaar yiw ma nga ca ihris ala ma yanfauk ihris ala ma yanfauka na ngay xir jëm ci li lay jëriñ wastain billahi nga dimbali ko sa boroom wala tajaz ca bul lottu fa in wa in asaabaka shay'un fala taqul law anni faaltu kaana kaza wa kaza lu la mën a dal bul wax ni su ma defoon lii day mu nekk nangam ak i nangam walakin qul qaddara allah waaye neel ah li la yàlla dogal wa ma shaa faal ci yàlla lu muy dogal mooy la gën mooy lu ko neex lay def fa inna law taftahu amala shaytaan ndax lawkat day ubbi jëfi shaytaane mi ngi noonu mbokk da ngay gis yonent bi alayhi salaam mu ne jullit bi nga xam ne dafa dëgër moo gën yàlla jullit bu lompañ mbokk jullit bi dëgër mooy ban jullit ndax mooy koo xam ne koo dóor mu daanu déedéet mbokk jullit ki dëgër mooy ki nga xam ne ngëmam dafa dëgër sahabatul kiram gis nañu ba ñuy yor ngëm gu dëgër amuñu naafiq suñu borom dañu lay bu ngeen dajalee ñaar fukk ci yéen mën nañ dàq ñaari téeméer du loolu la yàlla wax day ndax dafa fekk ne dañu leen ëpp doole yëmm déedéet mooy ngëm nga nekk ci ñoom bañ demee ba naafiq yi bëri ci ñoom suñu borom mu ne alima anna fiikum daafa xam na ne léegi aw lompañ mi ngi ci yéen waaye lu mu néew néew téeméeri jullit war nañu mën a dàq ñaari téeméeri yéefeer loolu kon ngëm nga dëgër ga mooy dëgëraayu ngëm moo tax yonente bi alayhi salaam mu ne laysa shadidu bi suraati innama shadidu man yamliku nafsahu inda alxadab nekkul mbër dëgg ci koo yenu dóor ci suuf kon it ka yàlla wax du ne julit bi am doole donte ne julit bi am doole doole jooju mën na koo jëriñ ci lislaam donte nit mën na ko lor am na ñu bëri doole ju bëri dañ yor moo leen wor ñu bew ci kaw nit ñi amma doole ji bëree da nga koo jë jëriñoo ci jihaad ci yoonu yàlla jëriñoo ko baril ay nawaafil jëriñoo ko taxawal dëgg su boobaa loolu dana doon njëriñ waaye li yàlla yi wax fi mooy ngëm ngëm gu dëgër sunu borom nag mu ne ñépp yiw mi ngi ci jullit maadaama jullit la rek même bu ngëmam lompañee ko baax la kenn du ko yemee la géefér looloo tax ba jullit bi lu mu sàggan sàggan mi ngi njaaloo mi ngi naan sangara mi ngi wor mi ngi wóoraj lu mu mën a doon du tee bu dee ñun daañ ko sang sang ko jullee ko jébbal ko boromam mi ngi noonu sunu borom nag subhanahu wa taala ne pour wone dëgër googu nga boo ko bëggee am nooy def mu ni ihris ala ma yanfauk yonente bi alayhi salaam ne lépp loo gis na sa njëriñ mi ngi ci xiir ci xiir ci ca bul ah doon koo xam ne nii koy lompan nga waa ji jóg di jàngi xam-xam rek lañ nga jàng-jàng ah waaye man daal lii daf may tardé rek déedéet continuer jàng yàlla mën na dem ubbi sa xel da ngay dem di uti alal continuer ut alal soxna bu baax nga bëgg continuer ut soxna bu baax da ngaa feebar di faju bul découragé continuer ihris ala man yanfauk waaye nag lépp looy def wastain billah na nga dimbali ko yàlla ci loolu da ngay yëg ne kattan gi du yow waaye yàlla mooy xamle yàlla mooy joxe yàlla mooy faj yàlla mooy xettali istain billah dimbali ko yàlla su ko defee sunu borom subhanahu wa taala loolee dalay dooleel su dee ne nag dem nga dara dal la loo xam ne neexu la sunu borom subhanahu wa taala sunu yonente alayhi salatu wasalaam nee na neel bul taxaw naan su ma yëgoon def li wala su ma yëgoon def rek déedéet ne lii day la yàlla dogal ci yàlla lu ko neex rek lay def mbokk gis nga li yàlla dogalul doo ko am foo ko mën a jaare mënoo fexe ba am ko abadan li yàlla dogalul du ñëw ci yow mënoo fexe ba am ko jaam bi lañ koy gërëmi mooy sabablu yem sabablu waaye li ci des lépp ci loxo yàlla la nekk wallahu ghalibun ala amri yàlla mooy not ca la nga xam ne mooy mbiram bul wax naan su ma yëgoon bal nee leen nii la yàlla dogal lu tax mooy loolu nga jàpp ne baaxul neexul ci yow ba nga naan su ma yëgoon mën na moo gën ci yow ndax sunu borom nee na waasa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum bari na lu ngeen bëgg lu ngeen bañ fekk moo gën moo gën ci yow benn xale yi ni dajale na ay dërëm yu mu amoon yépp pour bëgg a tukki Italie dem yàlla yàqu tukki ba mun a àdduna tukki na ndekete tukki boobu yàqu moo gën ci moom mosu leen ko gis ba tàyyee waay mi ngi noonu yàlla lu mu dogal rek mooy la gën maa ak sama mbokk bi Abdullah Touré ànd nañ jaale ji benn waay boo xam ni mag yi day ñëw fii ci jàkka ji wala rakk ji day ñëw fii ci jàkka ji dafa jógee Richard Toll ñu jël seen waa dëkk benn sept place dem di waaj a dellu ñu ngi jëm boori xombal bi ñëwee ba oto bi waaj a départ mu ne i fàtte naa son portable sept place bi na ko man mënuma laa xaar dégg nga mu ne kon dem leen wàcc dem jëli portable am ñëw ba jub ay côté Louga yooyu rek gis benn accident mu wàcc xool cette place ba kenn desu ci kenn desu ci xam ngeen ba muy làmb lajul portable am ciifatu nag mercitu na nangam mais ndikate yóotu looloo ko nar a sëwi looloo tax jaam bi lu yàlla dogal ci yow rek neel qaddar allah wa ma shaa faal yàlla dogal na lu ko neex lay def ngi noonu benn waaye ngi nii ut doom ba sonn mënul am doom fekk am na keneen koo xam ne doomam moo koy alak adduna ak alaxira benn waaye ngi ne bëgg na tukki mënta tukki fekk am na koo xam ni tukki moo ko alak mën na moom bu tukki woon al ko benn waaye ngi ni kaza wa kaza looloo tax lépp lu baax loo xam ihris jéem caa sàkku sa kemtalal kattan lu bu yàlla dogalee mu baax nga sant yàlla bu yàlla dogalee mu gàntu loo ko bëgg-bëgg santal yàlla waaye bu fa nekk naan su ma yëgoon abadan yeneen bi alei salaam mu ne law taftahu la nga xam ne nii moom mooy amula cheytaan kon incha allah ñu mujjee xadis bi rek
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه وفي رواية لمسلم حفت بدل حجب وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخله
hadis bi ñu mujjee ki ñu koy sunu yonent alayhi salaam mu ne ca abi hurayra moo koy nettali ba tey xujibati naaru bishahawaat dañoo baaree sawara ay bànneex wa xujibati ljannatu bilmakaarix dañoo baaree ajjana ay nattu ay ay naqar muttafaqun alayhi amma muslim moom waxul xujibat daf na xuffat dañoo wërale aljanna soppeeku xujibat dañoo baareega ca ñaar yi benn la rek woo bi maana ay bayna baynahu diggante jaam bi wa baynaha ak diggante loole xijaab ma nga fa fa ida faalahu daxalaha bu ko jëfee dugg ca bokk xadis bi kon lu ñuy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane yàlla dafa defar aljanna def diggante jaami ak aljanna ay mbir yu metti ay makaarix te mbokk xam ngeen ni jamono sedd bi nelaw yi fajar ni muy neexe amoo benn soxla nga dégg xaya ala solo nga daal di sànni sa mbàjj dem ci ndox mu sedd mi naan da ngay jàppam da ngay sangu loolu neexut weeru koor loolee xam ngeen neexul aj màkk nga bàyyi sa réew ay un mois nangam loolu neexul jihaad waxi noppi waaye sunu yonente alayhi salaam nee na yu naqari yooyu mooy yoon bi jëme aljanna naqari yooyu mooy yoon bi jëme aljanna amma sawara bànneex yi ñoo ko baare sa digganteeg yow riba ba njaaloo ba sangara ba lekk alali jàmbur ya ah nekk ci caaxaan ya lii mooy li baare sawara heure boo duggee rek yaa ngi jëm direct sawara loolee da ngay gis ne ah di xadis bu wér am na beneen xadis buy feddali loolu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yàlla dafa bind aljanna daa di ne jibril demal nga xool jibril xool ko daa di ne ko ah yéeg naa ni day sa jaam yi kenn du ci dégg aljanna lu dul dana dugg aljanna sunu borom wërale aljanna lay tax jaam yi yegg fa ci ay naqare ki tiis ne ko dellul xool bi jibril ñëwee ne ah est-ce que kenn dana fa dugg gannaaw ba mu defar sawara ne ko demal xool jibril xool ne ah sunu borom sawara day sa benn jaam du ko dégg ba pare di def lu ko fa dugal mu daal di koy wërale ay bànneexu bakkan ne ko dellul xool bi mu ñëwee gis bànneex yi mu ne ah ndax kenn dana mucc ci ñoom loolu kon moo tax ci bunt bi ñu ëbbide baabul mujahada moo jullit war nga góor góorlu digle yàlla yi lépp nga jéem a xeex ak sa bakkan def ko mais loo dégg ne lii yonent bi alayhi salaam moo ko tere bu ci xeeb dara yonent bi alayhi salaam moo tere lii bu ci xeeb dara sa kemtalal kattan fexeel xeex ak sa bakkan ba bàyyi loolee yonent bi alayhi salaam tere te xam ne yonent bi lu mu ñu tere rek mooy dafa doon bunt boo xam ne daf ñuy yóbbu fa nga xam ne mooy sawara lam ñu digal lu mu metti metti bunt la bu ñuy yóbbu aljanna yàlla na yàlla defal ñu àjjana sunu wàccuwaay musul ñu ci lépp lu ñuy yóbbu sawara wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad